salaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu ñëw def waxtaan ci poire waaw ah, poire de euh, lu bëri njëriñ la mi ngi jógee ci garab googu ñuy wax poirier garab gu yem la nag waaw garab gi taxu koo gudd waaye day meññ fruit bi jógee ci garab bi moom lañuy ñuy woy poire Eh, lu bëri ferñeent la vitamine lu bëri nga ciy fekk mi ngi bokk ci catégorie garab yooyu ñu tuddi les rosacées nga xam ne pom ca la bokk waaw poire poire tamit ci catégorie bi la bokk moo tax mu xaw ni rek pomme waaw waaye bokkul ak pom te moo ëpp ndox pomme xam nga poire dafa bëri ndox ci la ko composé ndox mu bëri ci lu daanaka près de quatre-vingt-dix pour cent poire ndox la mooy jus bi ci nekk eh, am na ay minéro nag waaw minéraux xeetu ferñeent yu am solo la ci jàppale nit ki waaw yi ñu tuddee oligo élément am na potassium am na zinc cuivre vitamine C vitamine A vitamine E vitamine B kon da nga gis ne moom it comme yu bëri rek meññeef yu bari eh, xeetu vitamine yu bëri ci ak vitamine K eh, ci ay njëriñam gis nga poire poire mooy fruit bi nga xam ne moom lañ gën a digal jigéenu wérul waaw jigéenu wérul dañ koy digal poire ndax euh, nutriments yooyu nekk ci daf koy dëgëral te di hydrater yaram bi waaw euh, day yokk ci yaram bi ndox te ndox moom dafa sell pour jàppale jigéenu wérul surtout keroog bu bu yeggee ci wàllu mucc Eh, loolu por mën na ko waaw lu baax la ci jàngoroy cancer te da koy prévenir ndax vitamine K bi ci nekk waaw ñi amee problème cancer ak ñi nga xam ne xëy na tàmm nañu di lekk poire euh, mën nañ cee mucc dañuy ne tamit poire dafa baax ci prévention wu jabet waaw ñiy lekk poire mën nañoo mucc ci jabet waaw ndax dafay réguler seen suukar waaw dafay dëgëral ay yax waaw te ñi nga xam dañoo am ay allergie yaram yuy xasan wala yeneen xeetu allergie ak bu mënta bu mu ci mën a ne di jëfandikoo poire am na ci njëriñ waaw ndax li lu ci am solo la poire dafa am lu ñu tuddee flavonoïde am ay antioxydant moo tax mu mën a aar nit ci wàllu cancer ci ñi koy jëfandikoo mën na ci mucc ak feebaru xol ak jàngoro jooju xaw niroog paralysie tu tuddee ko AVC nga xam ne bu la dalee génn gi mooy mel ni lu paralysé accident vasculaire cérébral jàngoro yi waaw gut moom tamit dégle nañ ko ci ñi ko amee dañ leen di wax ñuy jël poir ndax mën na leen dimbale wàcce acide bi nga xam ne mooy mooy joxe jàngoro ji waaye di ko jëfandikoo mën nga ci mucc ak ñi amee rhumatisme ak ñi ci bëgg a mucc yëpp dañu leen di digal poire waaw poire tamit ku koy faral di lekk dana wàccee cholestérol bu bon bi nekk sa yaram nañu wax cholestérol LDL waaw bu bëri boobu nga xam ne baaxul moom mën na ci dara te it dafay dëgëral say soldaaru yaram waaw li ñu naan système immunitaire xeetu jàngoro yu bëri dañ lay daw waaw eh, dañuy nekk ku koy faral di lekk sa deru yaram du gaaw a ras ndax ferñeent yi ci nekk yooyu dafay aar sa sa yaram kon nag moom tamit du fruit bi nga xam ne jar naa sàggane lu ñu lu ñu jar lu mat a fonk la ndax di ko jëfandikoo rek yi yëpp rek mën na ko kon nag li ñuy lekk rek na doon suñuy garab waaw di lekk alim di def alimentation bu variée di lekk xeetu fruits yu am njëriñ yi dina tax kenn ku ne ci ñun mën naa wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.